Aliou Batou mooy sa yaay. Aliou Batou Ibrahima Ndouraye. muy Jalle Thiaw Laye. te doomu maam daan mu baax mi. mi ngi nii bu ñu sëriñ bi doo ko ñaan kon bisimilah. nee na bisimilahi rahmaani rahiim mi ngi nuyu mbooloo bi yëpp di leen nuyu. suñu portable bi dinaa leen jot foofu boo xam ne suñu suñu suñu doom bi ñu ñu ñu mayee. ñu toog si kaw ñu maanaam. moom la sàngaay. dèjà bu koy bu koy ñaanal. man man man.

kii ñëw fii ba du ay tànk amin Mbacke amin Mbacke amin amin Mbacke amin jërëjëf Mbacke amin ñëpp bëgg nañu wàllay ci bëgg Mbacke maanaam ah man Cheikh Mahamadou Ramadala sa baay yaakaar naa balaa nga ngir di ko bàyyi ah, ah sama xel da nga gën a def sama fat ak jël ak jël Thank you. bunte bi laa doon seet maa ko nuyoo si Waly Mbegaan Ndour Waly Mbegaan keroog ba mu ganesee àdduna dañ koy teral ba rëbba yëpp si sunuy mbokki séeréer yi ne o kiino paax maak daal di si biir jël seeni fital dugg àll bi andil ko njamala dañ koy teral sa maam dañ koy teral ba rendil ko njamala si biir kon yu baax yu mel noonu buñ koy wax ci société defaroon tax a jóg ñuy sant yàlla bu baax nag di nuyu la famille Mbacke bàyyiwuñu kenn waaye tey ma tagg leen ci ñaari casquette ndax li ci Sénégal ñii Mati Mbacke nampal ñii Maram Mbacke moo leen nampal muy kan Alaaji Malick mi Mati Mbacke nampal Maram Mbacke mi nampal ah, ah, ah, Ah, Cheikh Ahmed Bamba radiyallahu taala anhu muy mbokk goo xamante ni sentiment yi muy daw dañ leen di topp ci silsila bi ci rasulillahi sallallahu alayhi wa ñu xàccee loolu nag jënde ko ak ngor ak pas-pas ak taalube ne dañuy tarbiyu yonent bi waaye dañ leen di topp ci xeet ba ci yonent bi kon ñaar ñu baax ñooñu fu ngeen teew dee leen ci dool na yéen teewal leen ay Cheikh Ahmed Bamba alaaj maa ngeen gën a teewal nee naa ku baax kii moom mooy mooy ah, liggéey mbaarooga la kon mbuub yal na la yàlla fay yal na la yàlla fay wéral cër kanamu njaboot gi lépp loo xamante ni tarbiyu nga ko wàcc na ci ñoom yal nañ barkeel te muurloo ko te fekke ko te tal ko may wax ne nag Omar Gueye xam na fi mu nu dugal ndax bu ñuy wër wër ween wu baax ñu dugal ñu ah, ah, kër soxna Mbow ah ñu fekk taam ne toog Youssou Ndour nun Omar Gueye sagal nanu sagal nanu moo tax ma ne ko Omar mu ne ah ma ne ko quand on aime une personne on l'aime tant avec ses défauts et qualités c'est le sentiment profond qui domine les yeux d'un amoureux mais aussi les cœurs. <laughs> Ah, ah man man nag bu ma neexee ànd ak bukki yi jàpp ma neexee ànd ak jaxaay naaw damay ànd ak bukki yi jàpp cër ba sa yàlla waaye dama ànd ak jaxaay yi naaw la ma nampa la ndax ku bokk ci demba ko dog cëngóoli cëngóolim làmbaay jaxeer dembam ñaay ñaan dembam bul boo demee ba porté message dafa war a leer ah, ma ànd ak délégation bu forte Ousmane Ndiaye jiite ko doon lami intime de Omar Obar Diour doomam du góor tudde ko ko taaw Ousmane def lépp pour gérer bés bi mais ànd ak président loolu leen ay Cheikh Ahmed Bamba alaaj maa leen ngeen gën teewal nee naa ku baax kii sëñ Abdou Karim Mbacke kuy sa baay sëñ Fallou si def ak dindi kuy sa baay sëñ Babacar si i si incha allah kuy sa maam Cheikh Sidi Hadj Malick si pas-pas ak ngor Maodo ne bu kenn wër bàyyi fi sunu Sénégal gii di wuti ne da ngay xami yonent bi ku mu réer ñëwal ma la Cheikh Lam daal ne tey ma defal ko loo xam ne kenn defalu ko ko nangul ko ba yonent bi jël léppam jox ko ñaar ñooñu dama bëgg bu ngeen taxawatee ngeen na kasketu alaaj Malick ak bu Cheikh Ahmed Bamba ngeen taxawee ndax ndabu ixsaan la lu daje tey damay wax ne jullit bu diinee matee imaanam mat léppam isaan bi la ñuy xaar te isaan bi mooy noonu ñu ko mat noonu ñu rafetale ba jot ci na day dëgër nii ngeen def noonu la kontaan nañu lool ci loolu waaye nag gàcc ngaaraama la famille Ndour soxna Abi sëy na boobu Ngoné toute la famille. ak madame Ndour yëpp rek. ñoo ngi moom lañuy wax Ibou Thiam doon opérateur économique ci Saly waaye ànd ak le président de RAP. muy organisme bu am solo ci tourisme barke démb lañ doon ubbi tourisme Saly te jëmma joojoo ko taxaw muy El Bari muy organisation boo xam ne nii ñun mënunoo fay Omar Gueye daf ñu yëg maa wax ne bëgg feebar la yëgee docteur ba li Omar Gueye def biir Saly bu sëriñ yi bu bu sëriñ yi toogoon ñëwuñu ñun waa Saly ñu gàddul responsabilité boobu Omar Gueye ndax liggéey na ko ko seen waa ji du yaafu gor la géer la garmi la xam na fi muy teg tànkam ndax président chambre des métiers moo ko représenté département de Mbour président village artisanal baa ngi toog Omar deselu nu dara buñ nee finance moo ci man waaye buñ nee ngor ak fas-fas moo ci man te nag ku sa taal bi def lu mel noonu dañ ko koy nangul seen taal bi gàcce ngaalaam nga wax ne maamam bokkoon na ca àndoon ca gor ba ci kër Cheikh Ahmed Bamba mhm. waaye moom dañu ci gor boobu mu ngi ciy gor ba tey da ànd ak gor bi di gor la ah, maamam ci kër Cheikh Ahmed mhm. may wax ne kontaan nañu lii rek lañ bëggoon